aqiiqatu sumhati dëggi dëggi ngistal fi qawli rabbi ca waxi kañu gërëm ixbaaru sëhiin mooy ngay xibaar jëf saalihin jëf ju sell joj jëfoon nga ko te kenn yëgu ko mu di la jural ngërëmal sunu borom waaye nga xëy wax ko nit ña rekk li xaradi ngir jublu ca loola xemmemtéef yoo xam ne buñ ko toppee yun sabu li dunya ma nga askanoo ci poñetam àddina rekk tax jaamu yàlla yu kawe ya nga defoon yow ak sa borom dong ngeen xam ko ca guddi nga xëy di ko nettali ngir bëgg nit ñi jox la cërëb àdduna boo xam ne poñet ma cay bàyyi ko àddina rek lay yem yaa ngi cay xemmem kamat hin lu mel ni ees di la tagg waxëjëb ak is di la yéem te waxiya loolu nag muy sàkku tagg ci àddina ak sàkku is di yéem ci àddina oxtoon mbokk la moo xam ne fi nasab boo ko toppee ma askanoo li riyaa i ca ngistal kon jëf jooju yéena ja sellul amma riyaa u bu fekkente ne nag dëgg dëgg ngistal moom nga bëgg a xam mooy lan fëx wa moom na nga xam ne an yasha mooy jaamab yàlla bi jëf alfata nga xam ne mooy waaju baax ji mu jëf-jëf joo xam ne ma ngi koy jëf te lu baax la lu niroog luy jur ngaramal yàlla la waaye lam ca jublu li xas di tax siimil wara jubluwaay ba muy def ca jëf jooja daal mooy nit ña di ko màggal mu am wàccuwaay bu kowe ca kawi nit ña waaye yàlla taxul muy jëf-jëf ja in sabata njeem sax na aw jalbi bi xayrin mbaa muy jëf jëf yooye nga xam ne mënees na ko tudde ay jaamu yàlla waaye da koo def ngir ñoddee ko aw yiw mu mel ni danga ne luy loolu am na saari alxuraan yoo xam ne boo ko jàngee yàlla dalay may wërsëg nga tànn saar yooyu rek di ko jàng lu mel ni isaa waaxaati bàyyi la ca des su boobaa njàngam alxuraan moomee yàlla taxatut sa wërsëgu bopp tax aw li daf fi sarari mbaa saar yi nga xam ne boo ko jàngee sunu borom musal la nga tànn yooyu yépp képp di ko jàng yem ca bañ a la ca des loolu yàlla taxatut ngir daq loola tax nga di ko jàng waaye yàlla taxut ka talabil maali kooka nag mooy kay sàkku alal wa kaw fi durri mbaa mu ragal ay lor looloo tax muy jàng saar yooyu ci alxuraan mën naa dem sax ci yeneeni jëf waaye yàlla taxatut jooja jëf yéene ja sellul sëriñ tubaa nee na waxtala foo woroom xam-xam ya wuute nañu fi xas di duniyaa ci juble nga xam ne jaamab yàlla bi ma nga ca jublu àddinaay kese su boobaa jëf jooja du sell kon nag lañu joxoñ ne àddinaay kese la ca jublu mooy jëf da xam ne isaalam yan wi yéene waalu te jëf ja yéene waale ca xayran aw yiw waaye bu ko jëfee yéene waale ca am aw yiw am ca ngërëmal yàlla doon lente ne àddina am na ca loo xam ne àddinaa tax waaye nag mën na ca am aw yiw ndax ka ko ca roy di ko ca toppandoo su boobaa yiw wa day bari yiw wa day kon dina am addina am ca yiw ka ko ca roy maaha mboole séem amma isa takku fihi azihi bu dee jëf ya nag nekkul ca jëf ya lii di yéene àdduna kese kese waaye yéene wala ci am ca ngërëmal yàlla nag ma nga ca jëf ja fa innawoo naka jëf joojee yudduhaa moom lees di woowe bi ixlaasin ca jëf ya nga xam ne ñooy jëf yu sell ya fatqi ni na nga xereñe sëxnahoo mbiram sëriñ tubaa nee na wa man yàkkun ku nekk saltifaati di boroom ak gestu lil xalxi jëm ci mbindeef ak lu neex bindeef ya fi sax yi ci ay jëfam waaye yàlla taxut fa aati dikk na bi riyaa i ci dëgg-dëgg ngistal noona baaxut na xam waawaaw mu ne jaam bi day walaw xalaa doon lente daa wéet beru moom dong lu muy jëf na ko jëf ngir jëmi yàlla ja bu fekkente ne lu muy jëf ma koy jëf ngir jëmi yàlla ja waaye wa illaa jëfu ko ngir àddina kookee day fayu xat limees na ay mbiram min muxlisil xibaadi mi bokk ca ña gën a sellal ca jaam ña ndax yàllaa tax muy jëf waaye nit ñi taxut àddina taxut ay suma xasat fu mu fi mën di jublu fu mu fi mën di bàyyi koo walaw saxaa doonte ne jaam bi ma ngay jëf waaye sellak xolam ga ca biir tax na doonte ne mi ngi jëf ay jaamu yàlla baynal waraa ci kanamu bindeef yi ñëpp di ko gis kulli yi mi waaye ab xolam li kaw nu him nekk ak bindeef yi xel bii cib xolam kal hadami daa mel ni kenn teewu fa di ko gis ndax xol bu sel ba ca moom ak cel ga ca moom te lépp lu muy def yàlla doo nga tax mu ne jaamab yàlla day bu melee noonu dina am ngërëmal yàlla te noonu la war mel wa minu bokk na ca ngistal sax yil mar i jëf joo xam ne jaamab yàlla bi mu ngi koy jëf li taqaru bi ngir jege ko yàlla ma ngay jëf-jëf yu sell yooya ngir jege min hadarati rahmaani ca péeyi yàlla yu kawe ya inda noq bi bokk ca tànneef yaa ko tax a jóg moo ko tax di jëf waaye yàlla taxut daa bëgg am place bu kowe rek jëmmi boppam a tax loola ak njaame nekku ca lépp lu baax boo koy jëf dangay nangu sak njaame jàpp ne jaam bi mi ngi jaamu borom jaam bi su boobaa place bu koy bu la borom jaam bi teg nga xam ne borom jaam bi moo la fa teg waaye jëf ji taxul mu teg la fa noonaa baax waaye jëf ngir bokk ca tànneef ya nekk ca adaratillahi ya pay yàlla yu koy ya képp kuy sonn ci jaamu yàlla ngir loola yàlla taxatut sa bopp a tax sa bakkana bopp a tax sëriñ Tuubaa nee na wa bokk na ci ngistal sax yu jaamab yàlla bi yow ngay jëf li listi ai li ngir ees neexal la jëf ya jëf yu baax la waaye jëf gi koy jëf danga bëgg ees neexal la ca moo tax nga di ko def aw talabil wusooli mbaa nga sakkoo ko ak egg ca kaw bokk ca ñu ko weña loolaa tax nga di ko def kuy def loolu tamit la ngay def bokk na ca ngistal wastid ai mbaa nga jëf ko ngir sakkoo ko ab am am lu jëf ja baax baax waaye loo ama tax nga di ko jëf su boobaa yéen a ja sellul jëf ja sellul mbaa nga di ko sàkkoo tax siimil xalxi nit ña dila la di la màggal di la réel di la teg ca kaw aw li xarxil aada mbaa ñu naan moom day ak xotti baax ak di jàmbaar ak a kowe yooya rek tax ngay jëf-jëf yooya yooyu jëf yéene ya sellul nga bëgg a wane xotti baax rek mi rabbi naa ca suñu boroom sil fadli kay boroom gënal yu mag ya bil hibaada ci jaamam yi képp kuy góor góorlu di jëf-jëf lu baax lu niroog ak jaamu yàlla waaye sa bakkana bopp tax sa kaweeg bopp tax am wàccuwaay ca xole nit ñaa tax yàlla taxul yooyu jëf yéene ya sellul sëriñ Tuubaa nee na wa hakasa naka noona hubbu bëgg di siiw fa bëti nit ña lu mel ni bu benn xew-xew amee nga xaar ba nit ñépp toog nga daldi fexe ba juróomi nit jiitu di yëkkati xasaayit juróomi nit mujj di yëkkati xasaayit nga nekk ca digg ba ngir réyal sa egsi fa tànt ba ñépp di la xoole ku mag ku mag ndax xumbal sa dikk siiwal sa dikk fa nit ña te loolu yépp la nga ci juglu bii ngi sal dong la noonu tamit baaxut yéen a ja sellu niru ku baax baax baaxlu ba ñu koweel sak arrivé ca nit ña te fekk ne yoo xol ba addinaay kesee tax ngir nit ña jox la place bu mag te nekkuloo fa nga mën a lekk seen alal yooyu it baaxut sëriñ Tuubaa nee na wax lool nag arriyaa mooy dëgg-dëgg ngistal al max fiyu ngistal gu nëbbu la nag faltantabihi na nanga yeewu wa minu bokk na ca ngistal yu nëbbu ya itraaxun nga damm saw loos maal xusoo yi ànd ak ak wone ak ragal yàlla inda liqaayim fa nit ñay daje bu bokk yay daje mboola yay daje gaa yu baax yay daje nga ñëw muuru ba nga xam ne kenn du gis say bët sëggal saw mel melokaan woo xam ne dañ naan ak ko ragal yàlla ak ko jub ak a sell waaye la ci jublu mooy am wàccuwaay ci xolu nit ña waaye yàlla taxul yaa nga mel noonee ñu teg la ko baax waaye ndikite yoo bi la xudduuxi kooku kat amut yaa ngi ci masalikul jinaan page 72 yàlla na nu mel na neex yàlla wasalaamualeykum